asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu sénégalais yépp euh, damaa waxoon na nag dootuma génn si najaay yi du wax mais dafa am genre nit ñoo xam ne kenn mënu leen a ñàkk a tontu maître El Hadj Diouf démb dama seetaan sa benn vidéo nga wax ci wax bu ñaaw wax boo xam ne yaakaar naa doo ko wax sa doom. yaakaar naa doo ko wax sa jabar te man jigéen laa nekk jigéen boo xam ne danoon daan dooleem rek mag nag su amee respect wala ñu jox ko respect moo ko may boppam mais yow Maître El Hadj bëggoo kenn ku la jox respect si àdduna parce que mag mu ñàkk fayda nga mag mu mën a wax wax bu ñaaw duma la manqué loo respect nag benn yoon parce que sama kilifa nga dama lay jàpp comme bët bi may xool samay parents bët boobu laa lay xool mais dama bëgg sa langage boo toogatee si internet bi di wax nga yemale ko mais El Hadj man soo ma xoolee ci kaw ba si suuf gisoo si man lenn lu ñàkk fayda duma jigéen boo xam ne dama ñàkk fayda jigéen boo xam ne dama loon daan sama doole yor sama njaboot laa dem ñu defaral ma samay papier yu leer nañ ma yor sama diplôme di liggéey samay liggéey di jël samay employé di leen fay chaque fin du mois nekkuma ci dëkk bi nekk ci télé yi di fen jomb naa loolu sama àdduna te ñaareel ba sa ñàkk fayda mooy diil boo xam ne bu buñ koy def li ngay bañ a dégg complot boo xam ne buñ koy def Maître El Hadji Diouf yëgooti noonu nga nekk benn dof nga xëy ñu jël la teg la ci internet yi ngay ratatati man nag boo ma xoolee nga xam ne man dama bokk ci famille boo xam ne exemplaire lañ seeni jamono ji nga toll ni yow Maître El Hadji Diouf dala waroon a fekk nga teg sa sijaada ak sa kurus di jéggalu yàlla suñ borom bi say bàkkaar mais defoo ko nga toog ci internet bi di wax waxi dof Maître El Hadji barke Seydina Mouhamad fekkoon damaa bokk ak yow billaahi dinaa la rey mais heureusement ma bokk maa yow tous Maître El Hadji yaa yées yaa ñàkk xalaat te yaa bon wala dangaa foone dee amul wala yow dangay foone dangay dund rek Maître El Hadji Diouf bi jeex na te man sa moromu doom kese la dama bëgg soo toogatee ci télé bi di wax nga bàyyi xel bu baax lu may wax li ngay wax maire El Hadj Diouf man rus naa dem euh, police mairie ñaan fa ay papier institut de professionnel ma jël sama turu institut tuddee ko tur bu am solo di liggéey sama liggéey di fay impôt yëkkati sama totom teg ko ci buntu kër gi Sénégal ñëpp si teg seen bët di jagatloo ay xale mais El Hadj Diouf man sama liggéey dama si professionnel soo xamul la ngay wax damaa bëgg nga noppi dañuy wax wolof njaay day wax na la ngaana nag day bëgg morom te ne nañ caga mooy xam moromu cagaam séenga boo xamul fu ma bokk dama bëgg nga déplacé wu laajte kan mooy Ndeye Khady Ndiaye boobaa danga noppi te man amu frontière sama dund fu ma neex laay dugg fu ma neex laay dugg tey tey tey su ma amoon soxla France damay dem doxi jikko yoruma nijaay joo xam ne day violer ay xale yoruma papa joo xam ne day yoro ay xale yow nag violeur nga moo tax nga bëgg ko morom nee ngaa naan day bëgg morom yow violeur bu mat nga moo tax nga bëgg morom. sëñ nga man Adji dama bëgg nga xam ne sama employé la maa ko jël doon ko fay weer doon ko liggéeyloo Sonko xaw ma ko su ma demoon ba am lu may faral sama employé Adji Sarr lay faral parce que lu mu boni boni liggéeyal na ma xaalis tegal ma ko sama kër Sonko nag sama client la da loolu ñëw sama institut kase di maasu demu yoonam amul si man soxla amu si moom soxla su ma demoon ba nekk jigéen boo xam ne naa fekk laa comme yow damay fekk ci Adji Sarr si lu mu wax fekk si la yow si li nga bëgg mais damay seet sama diggante ak yàlla suñu borom bi nga xam ne moo ma sàkk damay xool sama diggante ak yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ma bind ma nekk jigéen bu yor njaboot mais bàyyi xel samay doom yow nag bu fekkee bàyyiwoo xel say jabar bàyyiwoo xel sa njaboot nga nekk si télé bi di ratati ak média yi damaa bëgg bis boo toogatee si média yi di wax nag ma ci génnee merci beaucoup lii laa amoon li ma lay wax.